salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen nuyu baax di leen ziar ku gis lii nag xam ne weeru koor ñëw na waaye weeru koor bu ñëwee daan wax conférence tabaarakallahu mbokk yi conférence yooyu nag boo leen bëggee adduna bi yëpp seetaan ko ñëw leen si la Lerufisquois TV tabaarakallahu mu jëlal leen ko tegal leen ko adduna bi yëpp seetaan ko incha allahu rabbi waaye nag ku leen bëgg jot da ngay woot 77. 894 04 62 wala nga woote 77 446 30 19 incha allahu rabbi mbokk yi numéro yooyu boo ci woowee dinañ la teg ci yoon yu am solo waaye it dinañ la jël sa programme ni ko bëggee incha allahu rabbi la Rufisquois TV wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu